استاذ محتم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج بابكر ديلو نالو نيو بي اك زياره بي جلجف استاذ يوبلو بس بي واو حاج بابكر يوبل بي نك تاي دافاي نيو ريك تي نيغا خامني بو نو تيغي نيام ني وار بوكوندو دي ليك فامي بو نيك نيان غي مو ورا نيان بور خيول غي نو خيول اك سانت غي ورا سانت سونو بروم ndax lekk lu yàlla ba noppi def bàkkaar loolu nekkul lu baax xaj Babacar mu nekkoon loo xamante ni bii nag kër yu bari dañ ko doon def bu ñu tegee ñam wi ñu ñaan doog a lekk ñam bi loolu nag xaj Babacar xale bi nga koy jàngal walla nga jàngal ko mag mi wala kenn ci famille bi bu ñu tegee ñu war a bokkandoo ñun ñëpp kooku wax ko lan lay wax dafay wax allahumma baarik lana baarik lana fii ma razaqtana waqina azaba naar lii xaj Babacar bu ñu tegee ñam bi ñu jàngal ko xale bi ñu ñëpp ñu dëkk suñu loxo hmm. mu wax ko ñu ne bismillah ñu commencé ndoo ñam bi day am barke ba noppi yàlla dinañu mussel ba ñam waw duñ ci def bakkar xaaj babakar dina buñ ko lekkee. jërëjëf oustaz Mor ci yobalu bés bi amna solo bu ëlëk ëlëk sax férié la àllarba incha allah